waaleykum salam. monsieur Abdoulaye Sall donc je suis un ancien immigré nekkoon Verona plus de 27 ans retourné Sénégal nekk chef d'entreprise de liggéey euh, aussi am collaboration avec l'ambassade d'Italie de Dakar. waaw ñu leen di ziar bu baax euh, di leen wax leen mi ni ñu ko en Italie Maintenant, na méttiwul waaye alhamdulilah sant yàlla bu baax effectivement autorité yi dimbale nañu vraiment. Euh, aide ak diaspora def nañ ci ay jéego des na nag waaye aussi tamit vraiment waxtaan wax dëgg sa la am na ñu ne jot nañ jot ay eh, aide yoo xamee ne jox nañ leen ko am na ñu bëri ñu bindu woon ci plateforme bi première tranche bi ñëwoon na mu desoon deuxième tranche bi temps yi annoncé woon nañu ne ñu deuxième bi mi ngi ñëw donc jàppal ne vraiment waxtaan wax dëgg sa la am na lu jot a ñëw mais am na lu des nag loo xamee ne nañu donc mi ngi ci yoon bi waaj ñëw.

si plateforme bi ñuy jukki ñi njëkk a bindu ñu jukki leen bu leen jukkee dañu formé woon ay eh, ay comité yoo xamee régional lay doon am na des député jaspora bi am na couche yëpp parce que région bu nekk ñooy tànnal seen seen i jëwriñu bopp yuy xool ak saytu loolu donc ñooñu aussi tanit ñu ngi leen di xaar si final bi ñu defal ñu seen i seen i seen i seen i eh, seen li ñu li ñu ci mën a gis parce que ñooñu rek ñooñu mën a eh, wax effectivement est-ce que jaar na yoon wala jaarul yoon mais pour l'instant li ñu gis ñun ñep moy ni ñu ko défé vraiment waxtaan wax dëgg sa la nekkul tan sa bu la neex donc li ñu jëk a ñun ci gisagul ñun ñu jot si bokk nañ parti yep donc amul ben couche bo xamé né mais pour l'instant bëgguma euh, parce que bokkuma ci commission yi ñi nekk ci commission yi nak ñi ngi wax ak ñom di dégg ak ñom nee nañu pour l'instant li ñu jot ci ay papiers ñu valider ko yep jaar na yoon. Ah, màggal Touba dafa nekk benn benn événement boo xam ne dafa majeur rawatina ci sénégalais yi nga xam ñoo nekk Italie tey ñooñu suñu bëggoon ñëw est-ce que dina rencontrer ak ay jafe-jafe wala sax ñi nga xam tey bëgg nañoo gane si seen njaboot yan jafe-jafe la ñuy rencontrer ci yoonu dem ba digg bi. donc loolu luñ ci mën a wax bari na parce que compagnie yi déjà pour ñu ñëw Sénégal amagul vol commercial régulier yuy am actuellement vol yi dem yëpp ay vol euh, vol euh, privé charter la ay vol charter ak vol organisé ma amagul vol normal déjà mu nek problème bu problème. bo c'est cher donc euh, dañuy laaj ay test euh, yi nga xamé ni dëkk yi ñi jaar dëkk yu bari dañ koy euh, Sénégal aussi tamit dañ test mu nek ay retour fi ni du yomb noonu de trop si ñu bari ñoo xamee dañoo doon waaj heure bi instant bi ay màggal bu masaan a jot dañuy organiser ay vol yu baree bari ay vol privé xam nañ ne ren moom dina am jafe-jafe pour ñu mën ko organiser parce que li am diggante communauté européen bi ak Sénégal ak yeneen dëkk yi nga xamee ne dañ fay transiter nekk na ay jafe-jafe si voyage ndax feebar bi moo tax loolu nag aussi tam ñun ñi nga xamee ne dañuy tukki ñun ñëpp xam nañ ko xam nañ ne màggal si ren moom euh, ñu bari dañ ko bëgg mais du yomb waaw dina am ay jafe-jafe jafe yu bari ñuy ñaan rek euh, yàlla yóbbu ñu seeg jàmm donc ba ñu def ko comme yeneen màggal yi ñu ko daan defee. Euh, ñaxtu ci ay yi nga xam ne moom la ñi ko ŋànk xaw ma Air France la ak ni ñuy jaay billet dafa xawoon jëm jëm doy waar la pour def ñu mën leen ci yooyu tamit euh, am nañ ci lu bari luñ ci mën a wax parce que lépp lañ assisté billet yi dafa seeroon ba ëpp dayo Air Sénégal moo ko doon def ñun yuuxu nañ ko fu nekk ne billet yi dafa seer 1200 euros 1300 après lañ ko def ay 900 euros ba état bi nangoo subventionné 200 euros mais 200 yooyu ba tey may wax yow joxaguñ ko kenn. donc nag bon loolu président la république moo ko annoncé woon yónnee ñu site yónnee ñëpp ne nañ ko yónnee Rome ambassadeur bi dina jox remboursé nit ñi seen 200 euros mais ba tey jii may wax yow ñi defoon demande yi ñu ngi toog di xaar pour ñu ah, yónnee leen 200 euros mais bii noonu mu seere woon waxtaan wax dëgg sa la ëppoon na dayo ëppoon na dayo yuuxu nañ ko fu nekk ba léegi instant bi ñu toll nii nag euh, wàcc na euh, déjà ñun bokk nañ ci ñiy organiser sax fi mu ne nii actuellement ay vol yoo xamee volu charter la démb am na bu dem donc semaine bi yëpp chaque dix jours ñu organiser vol ñuy jóge fii ak ñiy dem mu amoon ay jafe-jafe aussi tamit parce que borom visa yi nanguwuñ leen woon a jël mais léegi alhamdulilah ak collaboration bi ñu ambassade ba ñu defal ñu ay papier yo xamé agence yi ak compagnie mën nañ yobbu borom visa yi ñu fekk ci seen njabot ndax yoyu tan aussi ay jafé jafé la yu maga maga maga mak yo xamé né immigré ñu ko doon dund dañu outalon ay visa seeni dom seeni jabar lué kër diko xaar affaire pandémie bi tëj leen après ñu ubbi ñooñu ñëpp seen visa commencé jeex seen i mënu ñoo ñëw wër ko renouveler donc di ñàkk xaalis bu bari mu nekkoon ay jafe-jafe daal yoo xamee ne euh, fi mu ne nii daanaka romb nañ ko ndax ñi ngi ñi ngi dem léegi ak a ñëw visa yi mën nañu dem ak fol euh, yi ñuy organiser donc amatul te seeratul aussi ay 560 euros lañ ci laaj bu njëkk ba 1200 1000 euros 900 xam nga ni loolu ëppoon na dayoo si père de famille bu war a dagg 2 billets wala 3 wala 4 billets donc mu nekkoon ay jafe-jafe yoo xamee ne eh, immigré yi moom vraiment waxtaan wax dëgg sa la année 2020 bi duñ ko fàtte mukk euh, année 2020 tamit am na ñoo duñ ko fàtte ñi nga xam ci euh, bi pandémie bi gànnee Sénégal ak fermeture frontières mën a xam ak ñan ñoo mën a tey laaj nga question bu am solo question boobu bu nga xamee ne bu nekk actuelle la parce que actuellement comité européen bi mënul jël visa tourisme donc ñi nga xamee dañoo bëgg a dem tukki ji fekk ji seen frère wala dem fekk ji seen xarit wala dem def tourisme mënuñoo dem ñi mën a dem Europe actuellement lu mel ne Italie mooy ñi am résident foofu ak ñiy defal seen doom regroupement familial wala seen jabar wala seen papa mais je précise regroupement familial c'est-à-dire dafa am visa yi dafa am type euh, D type C type C yi dafa am trois catégories dafay am ñuy def affaire am ñoo xam ne dañuy def tourisme simple am ñoo xam ne dañu daan tourisme la ak sa parent nek italien ñoñu kese ñoo mën a dem Té ñooñu bu dem dañuy dagg billet aller retour donc ñi nga xamé né dañ leen doon defal ay visa tourisme actuellement ñi amone visa ak ñi ko amagul ak ñi ko bëgg demander yépp ñoñu xamna ni il faut que pandémie bi jeex li ambassade bi annoncé defal ñu ko communiqué mooy déwén lañ leen di commencé defal visa donc visa yooyu noonu mënul dem Italie visa yi mën a dem actuellement Italie mooy regroupement familial mooy ñi nga xamee ne dañoo am typo C ak famille Union européenne mooy sa papa nekk italien wala sa yaay nekk italien ñooñu kese ñoo mën dem Italie actuellement. xam ne di ko ñaan. dama leen di ñaan ñu sóoraale si lu mel ni ñun immigré yi parce que tey ji ambassade bi ñi mu joxoon rendez un mois quinze jours vingt jours ñu fay rendez vous yooyu ñooñu ñëpp seen rendez vous dafa nara dafa nara a sauté dañ ko ñàkk seen rendez te dañ koy fay xaar ko ay weer ay weeri weer te ambassades yi mënuñu xaar. nit ku nekk da ngay war a ñëw tel jour nga indi sa sa say kayit ñu war a présenté wu kayit ba mënoo ko am nga ñàkk sa rendez-vous donc commencé donc li ñuy ñaan suñu bokk justice ak gouvernement bi ñu jéem a toog trouver des solutions parce que immigré yi loolu da leen di touché waat encore bu nekk lu mag a mag xam nga Italie boo fa bëggee dugal nationalité il faut kayit bu jóge tribunal lañ lay laaj Espagne waxi nopp France waxi nopp dëkk yooyu yëpp ñu war a jël kayit yooyu yëpp nga xool ñu toog si ñaari weer ñetti weer amuñu ko defuñu ko nekk na ay jafe-jafe jafe yu mag yoo xamee ne ñuy dimbali jàppale suñ mbokk yi nekk si justice bi liggéey ñu sooraale ñun immigré yi parce que vraiment coono yu bari na trop foofu. waaw ci question bi sax la ñuy daanale li nga xam ne moom la ki nga xam ne moom moo ni internet ci yoon mooy sénégalais yi nga xam ne dañoo ñëwoon vacances Bagaimana lah, ni? Tak isin dia je lah Pada ni bi jamu Ay jamu macam ni Nak dua ni tadi Nyamai tu ngondam Tak nyonyo Bansuar lah Mala sudir Tak Eh, ñu si bari daanaka ñàkk nañ seen i liggéey parce que aussi boo fi toogee ñu si bari amatuñu xaalis bu ñu retourné famille yu si bari ñu ngi fii fi mu ne nii donc euh, loolu dañ doon ñaan état bi mu jéem a def benn effort pour ñi nga xamee ñi ngi fii te bëgg ñibbi waat parce que vraiment waxtaan wax dëgg sa la toog 5 mois 6 mois 7 mois nekk père de famille sa kër ñu yaakaaroon station yi ñu daan def noonu si été bi yooyu yëpp euh, donc ren mënoo koo def mu nekk ay coono ay jafe-jafe yu bare bari bari yoo xamee ne suñu mbokk yooyu ko lancé waale moy eh, ñi nga xamé né eh, donc ñi ngi wajé ñew Sénégal nañ waajal sen bop bu baax parce que buñu ñu dañ leen di laaj ay test ay test Covid 19 donc ñi nga xamé aussi ñi ngi fi té bëgg ñibi amna ay vol yo xamé actuellement ñi ngi def Dakar Milan té seerut buñ ci bëggé dem fi ba le 31 août mën nañ see dem borom séjour yu jeex yi ak ñi nga xamé né dañu yoré eh, ay visa mën nañu def fii ba le 31 août parce que loolu aussi tam dama la ko fàtte woon a préciser séjour yi nga xamee ne dafa jeex mën nañoo ñibbi mën nañoo dem itali ak séjour bu jeex sans nga demander visa donc te demande visa bi da ngay fay da toog xaar ay weer encore te am nañ temps fii ba le 31 ñu ñibbi donc ñi ngi ñaan suñu mbokk immigré yi nekk Sénégal yépp te yore kayit yu jeex wala yuy waaje jeex ñu fexe ñibbi balaa le 31 août sinon bu ñu fi toogee dinañ fay xaalis pour demande waat visa normal te dinañ toog xaar encore te xaar ba aussi tamit mën na leen jural loo xamee ne ay xaar lay doon ndax xaar bu yàgg lay doon ndax loolu lañ tuddee visa ringresso donc ñooñu xeet yooyu yëpp comme ni nga ko waxee eh, incha allah rabi ku si bëgg ay leeral rek ñun boo jokkoo ak ñun dañ la si jàppale incha allah.

donc di raxas loxo yi eh, def doucement yàlla génn ñu si mbas mi ak jàmm ak salaam ba nga xamee ne dañ ko fàtte eh, ba beneen yoon maa ngi leen di ziar leen nuyu donc di remercier aussi ñëw bi ngeen fii ñëw seet si ñu donc wasalaam